te duñ ko jëndee dara kooku noonu Bassirou Diomaye da doon moroomam ñun xam nañ ne la Bassirou Diomaye nitu dignité la nit koo xam ne booy yi ñoo koy xool jeunes yi bu rombee ñu yëkkati seen alal daw di ko topp ak di bëgg di ko déglu. Mhm. ñëpp xam ban bët lañ leen di xool nit yooyu. nit ñi dañ leen xool comme des lèche-pieds yoo xamante si nii bu amee yenn dayoo ci dëkk seen xam-xam mayu leen ko seen posture mayu leen xam la moo leen ko may dem ci plateau yi songu ay gor yàq leen saaga ah, affaire yu demee noonu ñoom lépp lu am ci dëkk bi loolu moo leen ko may. Hmm. ce sont des personnes ils sont archi nuls amaluñ njariñ euh, société bi nekk fii ànd ak ay nerveux ak ay yenn mbër yu ñàkk fayda lañ ñu ñu foog ni am nañ benn am nañ benn dayoo mais aux yeux de l'opinion des sénégalais intègre nit yooyu foo boo leen tuddee seen xel yi day tey. Hmm. Bassirou Diomaye nag doon na li muy doon ba pare. dëgg la ce n'est pas des. énergumènes yi mel noonu ñoom ñooy dem ci plateau télé yi di ko wax te loolu boo ko waxee sa masque mooy gën a daanu Sénégal yi gën la jéppi Sénégal yi ce ne sont pas des yoo xam ni da nga yónne benn laaj jot à mu dem taxaw ne Bassirou Diomaye lii pour mu am jeexital Sénégal yi Sénégal yi du ñu ay def. Mhm. Sénégal dañu dañ bàyyi nga wax ba àggal ñu xam ne yow sa mënin lii la dañ laa yónni sa moroom góor moo la wodd ne la demal defal ma xaxar bi nga dem def xaxar bi kan moo lay nawlewoo yooyu jigéen moo la gën a ko bañ jigéen bu def loolu sax. Mm-hmm. comprendre nga moroomu góor sa moroomu góor wodd la nga dem à la di xool moo yi gën a cru waaye dañ foog ne loolu sañ-sañ la gis ñu dañoo dem ba xam ne loolu. ci jaayante bi ñuy jaayante nii amatuñ sax sañ-sañ dem ci kanam micro di ko wax ndax rus bi ñu rus sénégalais yi ak combat bi ñuy mëne noble mu noble bu bëggatuñ ci boole yenn yi mais ku mel noonu dem ci télé jël yenn kàddu yi di ko teg koo xam ne defu la waxu mm-hmm. waroon ngeen mën politique de manière mu am mm-hmm. gentleman nga dem di toog di di rëy làmmiñ mm-hmm. ñu ko gën a ñaaw làmmiñ gën koo teppee ko fi nekk mais ñun cest dañoo nekk ci combat boo xam si taluñu ay lat jom ñun defar réew mi lañ ak yëkkati jeunesse bi ñu àgg ci niveau bi nga xamante si ni mooy defar Sénégal mais pas tontu des petits hommes comme ça. Mm-hmm. ah Sa Wolof <laughs> nga sànni ci ah, loolu. xam nga nit moom moom ci lan la jàppee xam nga bu waxee ne Poutine ak diw dama bëgg mu jëlal ma Macron bi nga xam ne bi muy toog gone gu ndaw maanaam ci nii mais da ngay gis ne dafa jeex ngay gis mu yëg li mu yor ni mu diisee. Mm-hmm. ma suñ président yi rek ñoo mën a yor réew. di neew yi di gën a yor biir di gën a yore lex mais nit dëgg dëgg dëgg responsabilité tegu sa kaw. moom dañ ko war a gis ci yow. Obama à l'âge de lan quarante quatre ans bi mu yoree dëkk jëkk jékki premier mandat vraiment da nga gis mu commencé di di di jeex di nang ba pare problème bi mooy xam nga doomu aadama góor dëgg ci niñ koy xamee rawatina ñun ci ci kii mooy. la ngay def lañ la jox nga jëmbat ci fit ak fulla ak post bu mu mën a nekk mais boo mënta saaga nit wala mënoo xas nangam. ak tamit ki leen ki leen ni kii seen njiit ah kii suñu njiitu réew sax laay wax boo mënul woon a saaga Karim Wade ca jamono boobu am nay jamono benn waaye man suñu secrétaire national sar euh, chargé de l'organisation maa toppoon ci moom adjoint laa woon ci suñu mouvement. Mm-hmm. mais waa ji fii la nekk ci yéen dañ ko démarché 4-4. ak i marché yuñ ko jox ak nàngam ñun temps yooyu boo bëggee rek taxawal man am ci sama baay boo xam ne mi ngi ci ñoom biñ ñëwee di ma wax tegal ma trois euh, trois cent trois cent huit ak lan cinq millions te waa ji ñëw dana ma moom mooy lekk xaw ma nàngam ak nàngam ma bañ sama benn koo xam ne papa la ci man bi mu ko yégee ne ma nàngam ma ne ko yéen ñi ngi xam seeni mbokk bu ñu leen joxoon cër bii soxlawul ñu may démarché man suñ leen joxee cër bi dañ leen sagal mais yéen man bu ma ñëwee mel ni yéen mais li ngay xam tolluwaay mooy am xam nga nit ki bu fekkee ne matériel rek la gis moom li mu jàpp def mooy euh, yar yar nes na selu yaram li ci euh, laal yenn affaires yi mel ni jigéen di meles ah, ci ko xeet yi di voilà voilà ak yu demee noonu ah, moom moom ci àdduna voilà moom ci àddunaam yépp li mu jiital mooy matériel moo tax nga mën a gis Poutine mais boo gisoon Poutine da nga war a xam lan moo tax bu toogee Obama wala mu toog ak mhm. euh, Joe Biden siggi mhm. wala mu toog kenn siggi xam nga lan moo tax parce que fekkoon na réewam mu nekk à terre. d'accord mu yëkkati ko ba ci kaw. Joe Biden amul souci boobu parce que fekk na Amérique ñu defar ko ba mu nekk ci démocratie ak ñeneen ak ñeneen ñun xam nga lu ñu soxla koo xam ne boo yoree suñu dëkk da ngay yokku mais Khadija Mbaye Koor moo ko dàq noonu foofu. moo ko moo ko moo ko te dinañ ko dinañ ko mais mais dafa am dafa am nuñ ko war a jàngatee xam nga lu tax. Mhm. mooy ñun da ngay gis ñooñu seeni réew dañ ko defar ba mu nekk yow nag sa njiit lan la def ci réew mi. Mm. fekk démocratie bi grimpe yegg ba quatre-vingt mu rijal mu ridil ko ba treize. fekk ñu ñu nekk bonne voie taux de chômage dix point deux la ko Macky Sall fekk yóbbu ko. vingt point un xanaa loolu xanaa ku ko échec fekk boru Sénégal ay deux mille sept cent milliards ou deux mille nangam. matu trois mille milliards la nekk matu trois non non non yegg na quinze mille. voilà nga yóbbu ko quinze mille milliards. <laughs> budget bi Sénégal di yor tey la nit ñi gën a ndóol kooku résultat ba ñu la def jom. ba buñ leen di voilà ba buñ leen di taxawal ci ñoom la ñu gisee maanaam ñoo xam ne ay tojemaan nga xam ne boo jàkkaarloo. waaye yeneen dëkk du ma wax tubaab bi wala naa parce que président yëpp a yem. Mhm. yow dangay tuuti ci seen kanam. ñoom ñoo waroon a am problème xam nga nag li leen yoon man ñii li leen duma xam nga lan la Bassirou ñëw defar dëkk bi ba mu ne boy ba pare ñu doog a xam ñu doo ko nekk nit parce que problème bi mooy la valeur nit ki lan moo gën a noble sa dëkk benn homme d'affaires ñëw sa booru dëkk sax laay wax nga tenir ko teg mu recevoir la. bu doon Lat Diop lu muy lijjanti mooy nu mu ci amee ci milliards bu jàkkaarloo. waaw ah, dëgg la de gars yi Ngom nga lu muy xool costume bu seer bi muy sol. wala doomam ji mool ji koy romb <laughs> moom loolu lay xool parce que. nit yemuñu matérialiste la yem. loolu ah, fii la des ci kaw. xam nga Basiirou nag day mën a jàkkaarloo ku dul Babacar Ngom bu jàkkaarloo Joe Biden Joe da koy respecté. Mm-hmm. parce que amul lenn lu mu koy bëggal. parce que nit ki xam nga ñi leen euh, masse gi li ñu nekk mooy. bëgguñu dara ba mu jaral leen jaay seen ngor mënoo leen a teg lu diis ba mu jaral leen waaf gis nga bi muy bi ñu koy jàpp si impôt domaine bi gars yi taxawee di kii mu ne maanaam ñi ko doon jàpp si man bu ko neexoon bañ wala dara fi ñu ko fekk ak yooyu mais dafa xëy ñëw yombalal leen ko te li mu leen waxoon ne ñi ngi colossardisé yéen a ngi wayadiloo ah, ci wolof justice bi loolu Macky Sall la ko confirmé loolu moom dëgg da ko doon wax. Macky Sall moo ko confirmé Saaba si fay kan moo kan moo kan fan la jël décision nit respecté wu dafa taxawoon ne woon danaa respecté décision justice mu se coon nu mu tëdd coon la yaakaar na mm-hmm. décision bi mu teg kan moo ko sal salfaañe moo conseil conseil li mu def kan moo ko salfaañe loolu bu colonisation lan la moom moo wayee di loo mbooleem li Sénégal baax le woon mm-hmm. mbooleem ñi Sénégal daan am sax ba nit ñi leen xool di leen yëkkati ci kaw am na ci ñoo xam ne bu ñu jaaree fenn léegi ñu leen jox cer ba ñu leen kan moo leen ko xañ bien sûr Macky moo leen ko xañ mhm. kan moo fi toroxal ay gor fii xam nga toroxal gor weesu wut nga yor ay nit di leen femu tànn nit ba pare naan moo ci tane te tane jàngoro jógu fa xoolal Ousmane Sonko bi mu tànnee Basirou lan la wax moo ma gën mhm. makki Sall moom bi ko Abdoulaye di tànn ay jamono lan la doon wax il est modeste il na fait pas beaucoup de bruit mais il est même Idrissa Seck nga dégg mais Macky Sall kan nga gis ku mu àndal yëkkati la. amul mu àndal da toroxal piétiner la. da leen di waye di loo. amul ba tey da mhm. lu mat ay 500 élus locaux palais bi ne leen ngeen lekk yàpp ba nangam ak nangam taxaw bàyyi ñëpp ku jóg wax sa wax waye di koo ñu fii bàyyeel koo nangam nangam. loolu sëñ bi naan bul fàtte wut leen ay jaas wut leen seen koñ ay kërëb kërëb loolu après c'est-à-dire que ne ñooñu bu ñu ko toppoon si loolu ñun ci guerre civile lañ jëm non loolu chef de l'état nervi mhm. nervi chef de l'état gis nga saa mhm. ça gis nga euh, Bassirou Diomaye Faye kaam euh, cas d'école la dañ koo war a jàngale mhm. man damaa dem siège ba def ak moom seen jotaay mais avant ñu toog noonu di waxtaan muy wax loo xam ni maa ngi Omar Ndiaye ñoo àndoon ñu génn ma ne ma ne ma ne Omar Ndiaye mais gaañ bi loyal na mais est-ce que nit ñi Omar ñi ngi ànd ak seen leader yi léegi lii quoi waa jii gis nga ko bi émission bi jeexee mu ne kii c'est une tête